kon mbokk jullit ñi mbokk taalibe yi gannaaw ci taal di julli ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwaat ak yéen ci darsu euh, Nahwu Waadiya ci darsu ñeenteel bi euh, darsu ñetteel bi mu la dem jàngal lan mooy fexlul maadi fexlul maadi waxoon na leen mooy jëf joo xam ne dangaa jëf ju ba pare jëf ju paase la ñu jàngal leen tey darsu ñeenteel bi feelu mu daariw feelu mu daariw boo ko déggee mooy jëf joo xam ne jëf ju teela wala buy ñëw loolu mooy feelu mu daariw foo boo demee fenn ne la mooy feelu mu daariw mooy jëf joo jëf ju teew wala du jëf joo xam ne jëf ji ñëw la mu ne al amsila ah, li may misaali feelu mu daariw mu ne axsilu ba waxee axsilu dinaa raxas boobaa loolu raxasagoo loolu kon nekku ko jëf ju teew ay ba waxee maa ngi raxas kon kon boobaa loolu jëf ju teew la ay ba waxee axsilu dinaa raxas kon boobaa raxasu raxasagoo yeddaye sama ñaari loxo waaye ba waxee albasu moo ngi raxas kon boobaa albasu albasu ba waxee albasu dinaa albasu dinaa raxas te sama ñaari loxo boo waxee al dinaa sol wala moo ngi sol wala maa ngi sol boo waxee albasu maa ngi sol siyaa bi sama yére kon boobaa loolu jëf la waaye dinaa sol siyaa bi sama yére kon boobaa loolu jëf jooju nga wax ñëwagut na laxabu euh, dinañ fo wala ñoo ngi fo bil kurati ci bal bi kon boo waxee na laxabu fo kon boobaa jamono bi ñu wax yaa ngi foofu waaye boo waxee dinañ foo kon boobaa foo goo dil ko si bal bi namshi dinañ dox wala ñoo ngi dox boo namshi dinañ dox filu si biir bi kon boobaa doxu goo leen doxu goo goo leen si tool bi waaye boo waxee ñoo ngi dox filu xur si biir tool bi kon boobaa yéen a ngi dox si biir tool bi si jamono bi ñu koy wax yan bawu dina dina mbow wala moo ngi mbow boo waxee yan bawu dina mbow alkalbu xaj bi dina mbow kon boobaa mbowugut kon xaj bi mbowagut waaye boo xoolee moo ngi moo nag jamono mi ngi koy kon boobaa loolu jëf jëf su teew la in tabixu dina dina wala moo ngi dina yeewu alxarsu gardien bi di dina yeewu alxarsu gardien bi kon boobaa yeewu gut waaye boo xoolee moo ngi yeewu alxarsu gardien bi boobaa bu teew tàkkulu dina lekk bindu xale bu jigéen bi loolu jamono boobu nekk jamono bu teew jamono jamono jamono bi nga koy wax ñëwagut waaye boo moo ngi lekk albindu xale bu jigéen bu baax loolu jamono bu teew la tas balu dina dina lox al alwar tas lax al alwar du fleur bi dina lax gun bu baax laxagut jamono bi nga koy wax bu baax loolu nekk jamono bu teew waaye boo waxee tas balu moo ngi lax alwar du fleur gun bu loolu jamono bu teew kon ñu ñëwat yéen kon lii mooy misaalu feelul mu daarion dafay fel ne mu daarion mu daarion mooy jëf teew wala bu ñëw après ñu ne andi benn misaal bu ne nga andi si misaal yi nii comme misaal yi mu la jox nii wala yeneen yu du yi kon lii mooy misaal euh, feelul mu daarion kon lii mooy misaalu feelu mu daarion kon ñëw yéen saru feelu mu daarion su koy wax wala ki nga jàkkaarloo wala ku fi nekkut boo waxee ana man axsilu maa ngi raxas waaye kon yow yow ngay waxat axsilu maa ngi raxas yow kon sa jëm boppa ngay waxat comme man sama bopp laay waxat waaye boo waxee nax nax nu ñun nax nu ñun boo waxee nax nu ñun quoi comme boobaa ñun yéen mbooloo la naxsilu dina raxas wala naxnu ñun ñoom ñaar ñu góor ñi dina raxas anta taxsilu boo waxee anta yow taxsilu dina di nga raxas dina raxas anta anta yow ke ke jàkkaarloo anti yow yow moom ku jigéen ki ki nga jàkkaarloo taxsilina dina raxas boo bëggee antuma ñoom ñaar yu góor ñi nga xam ñaar jigéen antuma ñoom ñaar ñu góor ñi ga jàkkaarloo tax silaani dineen ñoo ñoo ngi raxas raxas antuma ñoom ñaar ñu ñu ñu jigéen ñi tax si liina dineen tax si liina tax silaani dineen raxas bu ko antum ñoom mbooloo mu góor ah, xam ne mbooloo mu mu góor fi nekk ñi ah, nga jàkkaarloo taxsiluuna dinañ raxas booga antunna na mbooloomu góor na mbooloomu jigéen ñi nga na ah, dinañ raxas booga woo moom ku góor ku fi nekkut yaxsilu dina raxas yiye moom ku jigéen ku fi nekkut taxsilu dina raxas huma ñoom ñaar ñi góor ñi nga xam ne ñoo ñu fi nekkut yaxsilaani dina raxas ñoom ñaari jigéen ñu fi nekkut taxsil taxsilsilaani dina raxas hum ñoom mbooloo mu góor bi fi nekk bu fi nekkut yaxsiluuna dina raxas hunna ñoom mbooloo mu jigéen fi nekkut yax yaxsil na dina raxas kon lii nii lu mu la limal nii mooy sarfu faalul mudaare li mu leen limal yëpp mooy sarfu faalul mu daarewu kon ñu ñëw si albaxsu li mooy gëstu bi li mooy gëstu bi alkalimatu ula baat bu njëkk baat bu njëkk fii am si saabiq si misaal yi jiitu alkalimatul ula baat yi njëkk yi fii fii am si saabiq lépp afaalul ay faalu mu ne baat yi njëkk yi si baat njëkk si misaal jiitu yi yooyu yëpp ah, ah, feelu la li li naka bépp si ñoom li ànd ku li mina naka bépp si ñoom day tegtale ala ala si jëf fi jamin xaas ni jamono bi ñu koy jagoo mu ne naka bépp si ñoom day day tegtale si ah, si ama jëf si jamono bi ñu koy jagoo wa ida tadabbarta boo boo settantalee xaala zamanu bii jamono alqaasu hada zaman bi la jamono alqaasu bu jagoo fi kulli si lépp minaas bi kulli minaas bépp si ñoom waccatawu di fekk imma benn xaadara mu teew imma benn mu saqwe wala buy ñëw mu ne boo seetee jamono jamono bu jagoo bi ah, bépp si ñoom di nga fekk benn mu teew imma wala wala muy ñëw mu ne fal feelu ak feelu ah, dinaa raxas yadullu day tegtale alaa usuli xasi si amar raxas fi zamin haadir jamono bi teew aw ilmustaq wala bi ñëw mu ne ah, feelu dinaa raxas loolu day tegtale si amar raxas fii fii ah, si jamono jamono bu teew aw ilmustaqbala wala bi ñëw wal feelu feelu wal feelu albasu feelu dinaa sol yadullu day tegtale ala usuli lubsi si amul sol fi demil xaadiri jamono bu teew awil mustaqbala wala bi ñëw mu ne feelu dinaa sol loolu day tegtale si ama sol bi si ama sol si jamono bu teew wala bi ñëw wayu sama wayu dina ko tuddee kullu feelu bépp feelu minaasa naaw si yila xeet af feelu mu daaru feelu mu daaru mu ne dina ko tuddee bépp feelu si yila xeet feelu mu daaru feelu mu daaru wa ida nazarat boo xoolee ilaa ilaa awal sa xarf bu njëkk bi fi kulli fi'l si bépp fi'l min min haadil si yi la fi'lu ashbaaha ayu ndiro yooyu wajataw di ko fekk hamzatan ta mooy hamza aw nuunan aw nuunan wala nuun aw yaanu wala yaa aw taawun wala taa mu boo xoolee sa xarf bu njëkk bi si bépp fi'lu si si la wala yu yooyu di nga ko fekk ah, si ñeenti baat yi tamay hamza hamza nuunun tamay nuunun aw yaawun wala yaawun wala taa mu ne kon boo xoolee si ñeenti yi lay commencé wari sama dinañ ko tuddee haadal xarfu si la xarfu yi si si haadal xarfu arbaat si ñeenti xarfu yi nii xarfu mudaaru si si xarfu mudaaru mu ne ba dinañ ko tuddee si si si ñeenti xarf yi nii tamay xarful mu daari boo xoolee misaal yi ma la njëkkoon jox si ñeenti baat yi boo xoolee si fer mu daari bi di nga ko gis comme boo waxee aksilu aksilu boobu al commencé wala nga ne nalaabu boo tamit nala commencé wala nga ne yan baw boo tamit boo tamit yan wala nga boo tamit ah, ya aw yaa yaa yaa la commencé wala nga takkulu takklu lekk wala moo ngi lekk booba boo aw taaw wala taa foofu la commencé kon si si ñeenti xarf yi la mën a commencé si xarfu njëkk bi mu ne kon lii mooy gëstu bi lii mooy gëstu bi yaa nga leen misaal yi waaw ah, mooy waxal la gëstu bi kon ñëw si alqaayda lii mooy tënk bi qaayda bi nag danga koy mokkal mu ne al feelu mu daari feelu mu daari woo moom kullu feelu bépp feelu yadullu day tegtale ala husuli amali si ama jëf fi zamani xaadiri jamono bu teew awul mustaqbal bi ñëw mu ne feelu mu daari moom bépp feelu yadullu day bépp feelu day tegtale si si si jamono boo xam ne jamono bu teew awul mustaqbala wala buy ñëw wax na ne jamono bu teew mooy jamono bu teew mooy jamono bi ñu koy def waaye jamono pa jamono boo xam ne ñëwagut boobaa loolu dañ koy waajal mais ñëwagut mu nekk mabdu mabdu an ñu tàmbalee mu ne mënta ñàkk ñu ñu wala wala budda ay yakun mu nekk mabdu an ñu tàmbalee mu ne mënta ñàkk ñu tàmbale si xarfu si si harfu muda feel mudaari'am te te mooy baat yi nii waye moom alhamdu te yaa wa taa wa yaa wa yaa wa taa wa la ah, misaaloon kon lii nii mooy feelul mudaari'am darsu bi mooy darsu ñeenteel bi kon lépp lu si jub la lépp lu si dëng ko ak si nuy gëstu in uriida illal ma stata'tu wa billaah alayhi tawakkaltu